na lool euh, mu mel ni kon euh, Muawiya am na benn bés muy waxtaan Omar ibnu Xataab ci Xubras bii moo tudd léegi muy dëkk bii di Xubras euh, ak war géej gi dem fa Omar daa bind ca Omar ibnu As si naa Omar bind Omar ibnu As ne ko melalal ma géej gi ak ku ci war nu muy mel booba Omar ne ci xilaafaam Muawiya laaj ko ndigal pour dem te dëkk booba toj ko dugal fa diine Seydina Omar bul Xataab bind leetar Omar ibnu ne ko daa bëgg nga melal ma xubras ak géej gi Omar ibnu bind Omar ibnu Xataab leetar ne ko man de gis naa mbindeef yu bëri mbindeef yu bëree bëree bëri ah, xalxan kabir yarkabuhu xalxun zaxir mbindeef mu mag laa gis mbindeef su ndaw war ko mu ne bu bu yëngoo lab bu yëngoo xotte bu bu yëngoo xotti xol yi bu dalee xotti xol yi te bu yëngoo tiital xel yi bu ne degg xotti xol yi te bu ne rang bu bu yëngoo yàq xel yi xel yi dañu dollee ko ci moom ak néew ñaawteef yi dañu gën a bëree ci moom ñoom ñoo nga xam ne ñooy war géej gi nag mu ne dañoo mel ni sax ci kaw weñ sax ci ko weñ gu ñuul ku ne xam ne ne sax dara la mën a lu weñ gu ñuul soo jengee lab soo muccee teqali koog yoon wi Omar bi mu jàngee leetar Omar ibn Al-As bii la lii mu ko cax bi ko Omar ibn Xattaab gisee ba jàng leetar bi daa bindaat Muawiya ne ko bul yenn bul digal benn jullit mu jëm xubras di war géej gi di dem waaw waaye Muawiya bii ba tey moo ubbi xubras ci jamono Usmaan ibn Affaan ubbi gu leer nañ ñi waaye ci jamono Umar ibn Xattaab yombutoon pour mu ubbeeku ndax lii rek Omar ibn As waxoon atam ñaar fukk ak juróom-ñeent ba tey ci la Usmaan ubbi lu dëkk bu naan istaxar istaxar ak fasha at moom it di ñaar fukk ak juróom-ñeent ci la Usmaan dolli jàkkaay yonente yàlla Muhammad ji yaatalaat ko kon ñaar fukk ak juróom-benn ca gàddaay ga ci la yokk masjidul haram ci xilaafaam ñaar fukk ak juróom-ñeent ci la yokku jàkka yonent yàlla Muhammad ji nga xam ne moo nekk Madina mooy fa yonent bi tëdd mu tabaxee ko ay xeer yu ñu yett mu def euh, téeg bi lépp di xeer waaye mu def gudd ñaay jàkka ji téeméeri mètre ak juróom-benn fukk boo ko xaymaa dalay lay jox juróom-ñaar fukki mètre bon maanaam juróom téeméeri xasab ak juróom-benn fukk. waaw moom la def gudda ñaay bi bu dee ci mètre kon mu def jox la juróom-ñaar fukki mètre ak juróom waaye yaata ñaay bi nekk juróom téeméeri mètre ak téeméeri xasab ak juróom fukk téeméeri xasab ak juróom fukk kon mu jox la moom it juróom-ñaar fukki mètre ak juróom fukk ak juróom kon loolu Ousmane a ko njëkk a def ci jàkka yonent Yàlla Muhammad mu ubbiwaat jàkka ji yaatalaat ko tabaxaat ko yokk gudda ñaay bi yokk yaata ñaay bi ci xilaafaam euh, atam fanweer ma ci la ubbi jawr ak dëkk yu bari ci xuraasaan ci la ubbi Naysaabuur ci la ubbi Taws ci la ubbi Saraxus ci la ubbi Marwa ci la ubbi Bayaq at mii lu ba dëkk yu bari Ousmane toj na leen dugal fa diine lislaam teg fa kàddu gi yàlla alal yu bari dikkal na ko boor bu nekk ndax dëkk yi mu ubbi ndax dañoo nekkoon dëkk yu riis yu bari teraanga yu bari naataanga moo tax alal yu bari jóge na fa ñëw ci loxo Ousmane Ousmane xara saxaaba yi ñu bari jox jox na leen ci teraanga jooju dolli leen alal yokk seeni soldu yokk seeni euh, bëgg-bëgg yépp ci alal jooju bi fa doon jële atam ñaar fukk ak fanweer ak benn nag xilaaf Ousmane ci la Abu Sufyaan faatu Abu Sufyaan ibnu Harb mooy wajjuru Muawiya at moom it ci la Hakam ibnu Abi As moom mi dal di faatu bay taxu Seydina Ousmane mu ñaari mag Abu Sufyaan ak Hakam ibnu Abi As waaye ci at moomu di atam fanweer ak ñaar ci xilaafa Ousmane ci la Abbas bay tax yonent yàlla Muhammad faatu Seydina Abbas mi nga xam ne moo jur Ibnu Abbas di bay tax ci yonent yàlla Muhammad di bay tax yonent bi euh, ba mu faatoo Seydina Ousmane ko jullee waaye ba tey at moomu it ci la ki ko tànnoon mu nekk xalifa njëkk a jaayanteeg moom di Abdurahmaan ibnu Awf ci la faatu moom it bokkoon ci fukk yi nga xam ne euh, ñun garanti aljanna lañ bokk. Ousmane Abdourahmane Afu moo saraxe benn bés ñeenti téeméeri junni ci ay xaalis benn bés la ko saraxe ak jëgg goo xam ne kenn xamul fu ñu jógee sa fees dell ak marchandise lépp mu saraxe ko fi sabilillah moom moom moom Abdourahmane Ibn Awf bi nga xam ne moo njëkk a jaayante ak Ousmane Ibn Affan at moomu ba tey ci ñaar ak fanweer a ñett ba tey ci la Abdallah ibn Mas'ud faatu al-Azali mooy ki njëkk a biral alquran bokk ci jàngkati alxuraan yi bokk ci ñi mokkaloon alxuraan bokk ci ñi jiitu ci lislaam bokk ci boroom xam-xam yi gën a siiw ci saxaaba yi yaatu xam-xam at moom it ci la Abu Darda faatu mooy ñu fanweer a ñett fanweer a ñaar ci ci xilaafa Usmaan ci la Abu Darda faatu ku ne xam ne dëddu àdduna ci moom la yem ak Hakim at moomu ci la jël Damas dénk ko Muawiya Damas muy Syrie mu jël Muawiya teg ko fa. Muawiyata ibn Abi Sufyaan at moomu ci la Abu Serin alxifaar yi faatu atam fanweer a ñett mi ki xam ne bu dee langue bu rafet wax bu set leer ñëpp moo ci moo taxoon ñu tuddee ko saadiqul laxaja lu mu wax rek da koy xam laxaja bu leer naññi set wecc moom Abu Darda at moom it ci la Zayd ibnu Ali Zayd ibnu Abdullah ibnu Abdirabba al Ansaari ci la faatu Zayd bi moo njëkk a gis géwant ci nelaw ñu wax ko yonent bi yonent bi santaane ñuy noddee noonu maanaam noddu moo ko njëkk a gis ci ay nelawam bu njëkk avant noddu dañ doon tëgg ay tabala wala ñu taal safara ci guddi gi wane ne julli jot na waaye moom bi mu géwantee ñu ne ko nii ngeen war a noddee mu dem wax ko yonent bi yonent bi doxal loola doxal géwantam nga donte moom la yàlla yónni yàlla jaaralewul noddu ci moom xoolal yàlla mbiram cib saxaaba la yàlla kooku waxi ko yonent bi yonent bi nag kon nag nañ ko jël di ko notte kookoy abdullahi eh, zayd ibnu abdullahi ibnu abdirabba atam fanweer a ñett moomu la mixdaat ibnu aswad daal di faatu ca ponkali la bokkoon jiite na ay xare yu bari ci jamono yonent bi ñu yenu ko indi madinatu munawar jëlee ko ca juruf juruf fa nga ca biir jiri falan ko yenoo indi ko madina suul ko fa moom mixdaat ibnu aswad at moom it ci la Abdullah ibn Abi Saad ibn Abi Sarhi xare dëkk bu naan Abbas Éthiopie atam fanweer ak ñeent ci la ko fa génne Zahid ibn al-Aas euh, ci lan d'accord ne na na bàyyi na génn na wàcc place ñu teg fa Abi Moussa al-Ashari loolu atam fanweer ak ñeent la ci xilaafa Seydina Ousmane atam fanweer ak juróom ma ci lañ ci lan rey Ousmane fanweeri at ak juróom. ci la Ousmane ci lañ ko buum jour yi nee na Ousmane boo xoolee li mu toog ci xilaafa gi fanweeri fukki at ak ñaar la fukki at ak ñaar la toog euh, su ko defee juróom benn at yépp euh, nit ñi amun woon benn coxor buñ ko yéene wala euh, diingat buñ jëme ci moom wala weddi gun jëme ci moom juróom benn at yu njëkk nee na moom laa gënoon a bëgg ci Quraysh gannaaw Omar ibn Khattab ndax Omar dafa nekkoon ku tar ku bëri doole ku tar ku daa duma ku daa tëg nit ñi waaw ndax nit ku nit ku nekk da nga koy àttee li mu toll ki nga xam délinquant la da koy wan luy dindi délinquant ki nga xam ne wayu la Omar da ko daa woon lii dindi wayu Omar ki nga xam ne kàccoor la daf ko daa teg coono yi dindi kàccoor maanaam nit ku nekk rek dafa am xeetu mbugal bu mu lay mbugal ngir génne la ci jikko ja nga nekkoon ba nga baax waaye loola taxoon ñu bari dawoon génn Madina daw génn fi dëkk fi Omar nekk di ko làqatu ak ñenn ñi xaw yeeru ngir xam ne ne lii Omar teg leen attanuñ ko ñu yaru yarulu waaye du dëgg ci ñoom waaye di Omar demee nag Ousmane Ousmane toog ah ca la ñooñu ñëpp feeñaatee nag ku dawoon dig si gëpp ku doon yaru yarulu wane nga sa jikkoy bopp nii laa mel ah te Ousmane bëri yërmande lool bëri kersa lool nooy lool loo wax mu gëm te jamono boobu boobu kàccoor bari na wax lu amul bëri na tiriyaay yi bëri na tappalekat yi bëri na Ousmane moom loo wax rek mu gëm gore moo tax affaire am commencé am problème moo tax nag bi yàlla dogalee mu toog ah loolu daal di xew fitna yi commencé am def lu la neex commencé am. Euh, Omar Ousmane li ëpp ci ñi ko jege di ahlul bayt maanaam di njabootam di ay bokkam parce que ku mel ni Abdallah ibn Abi Sarhi ba mu ñëwee ci bi laaj pouvoir yonent bi daf ko xool ne ko yeyoo ko dan laa war a yilif waaye waroo yilifi loolu la ko bi gàntoo ne ko mii mbir kenn du ko laaj ñu la koy jox ndax natt rek la soo ko laajee ñu jox la ko muy natt yàlla seetaan la ca muy natt su su la ko yàlla joxee nag dana la jàppale muy xéewal kon ñu tamit refusé na Abdullah ibn Abi Sarh te kooku mook Usmaan ay doomu ndey lañ yàlla dogal kër ñëw toog ci xilaafa Abdullah ibn Abi Sarh del si wàcc Aboubacar pour bëgg poste na ko man de daa bëggoon nga fal ma barab sàngam Aboubacar xoolaat ko ne ko ah munul munul nekk euh, la déggoon naa yonent bi xañ nga ko kon duma la ko jox loolu yu lu yonent bi ñemewut ba xañ la ko man Aboubacar ñemewuma ko ba di ko def Aboubacar it xañ ko poste bi kooko demaatu yoonam bi yàlla dogale Omar toog mu dikkaat ab diir bi Omar toog ab diir mu ñëwaat moom it bëggaat poste nam ko sàkkoon ci Aboubacar mu delluwaat ci Sidna Omar ne ko daa bëggoon nga fal la xubras Omar xool ko ne ko munta ne su ma la ko nangulee eh, nangul nangul naa nangu naa loo xam ne ñu ma gënoon bañ nan ko su ma la ko bañalee it bañal naa la loo xam ne ñu ma gënoon bañ nan ko kon nag ma du ma la jox poste la ñooña ragaloon ba tey loolu laa ragal dàq na ab Ibn Sari ba tey amul poste yàlla dogal nag mbokkam toog na tey mooy Ousmane Ibn Affan wala na ku wala ku ayewal sa moome Ousmane falu na te doomu ndey la ci moom moo tax mu jël dëkk bii nga xam ne euh, mooy Kubras jox ko mbokkam moom loolu nag bi mu amee bokk na ci li waa ji gën a def mooy comme léegi yëf yi dikk na ci banu umaya te li ëpp ci poste yi banu umaya ñoo ko yor ndax Usmaan it boo gisee mu jëfandikoo loolu dafa jokk ak mbokk ndax it yàlla daf ne nit ku nekk sa mbokk gën a yee ci yow aljaaru aaqu bi sifati aqihi mu ne kon nag comme ay post la da koy dénkaane da koy dénki bokkam te it loolu alxuraan wax na ko yàlla nee na kuy joxe dara kuy dépensé dara ki ci gën a yey mooy say waajur ak sa mbokki jege ñaali maa anfaqtum falil waldayni wal aqrabin léegi yàlla loolu la wax al aw awla lépp lu mën a doon sa mbokkam jege ñaali mu ci gën a yey kon nag poste yooyu mu doon siddali def na li ko sunna wax ak aaya bi waaye lan la jur moo nag mbir maa ngi noonu euh, Sayd ibnu Musayyab nee na moo tax loolu tax na nit ñu bari commencé am problème ci xilaafa Ousmane am ay discuter mbokk mi jege nag Ousmane dëkk rek ci julli yendoo naa faraana julli yendoo koor ak alxuraan ji muy jàngare lépp mu teg ko ci loxo nit ñi talut nit ñi talut yëf yi ma nga ci jaamu yàlla am rek nekk naafik naa fi mooy ku taqoo yàlla rek àdduna ji teg na ko fële yàlla jox na ko ko waaye soxlawu ko parce que adduna ñaar la ki soxla àdduna ak ki adduna soxla moom soxlawul àdduna àddunaa ko soxla ndax àddunaa dox ba ñëw ci loxoom muy xilaafa gi waaye du lum laaj du lum bëgg xam ne nattu kese la moo tax euh, jaamu yàllaam googa taxoon na lu bari da koo joxoon rek gaa yi ñuy doxal ay ministre am ay secrétaire ay conseil technique am ñëpp ñoo yor yëf yi moom mu tëju rek na ca jaamu yàlla ka ma nga ca naafile ya ma nga ca alxuraan ja ma nga ca julli ya ma nga ca koor ga lépp ku koy doxal marwaan mooy bras droit am mooy rëkk rëkk ci moom bu doon deuxième président nag naan mooy vice président bi lépp ci marwaan la nekk te marwaan yi di doy waar ndax ku ne xam ne ne euh, xakam mi ko jur mas naa ñëw ci yonent bi sal sal yonent bi xool ko ne ko xabiis ibnu xabiis xabiis yóoludu xabiisan maanaam maanaam ci misaal bul ko doon firi da naan euh, bandi bu juraat bandi ndax marwaan danañ xam kan mooy marwaan ci kanam lu mu sañutoon amul lu mu ragalutoon amul am fit lool te moo gën a bokk ak Ousmane parce que akam a akam abi aas ibnu Afan Afan ibnu abi kon jegee nan lool moo Ousmane ay doom bay lañ Ousmane jël lépp dénk ko teg lépp ci loxoom mooy doxal mooy recevoir mooy bind leetar mooy tampon mooy signé mooy fal mooy folli lépp lépp lu mu def lu jubul bu dikkee ci Ousmane wax ko lu jubli Ousmane gëm loola ndax seetu ko ndekete yoo addunaa gi tukki foofu la julli di commencé nag jaxasoo commencé am ay mbir Ibn Asakir nee na dama wax Zayd ibn Muzayyab ne ko waaw naka la ne naka lan reyee Ousmane ak biñ koy lu tax nit ñi lu lu fu nit ñi ci rey Ousmane ak lu tax waa asxaabu rasul wan ko gannaaw seetaan ko ban rey ko Zayd Zayd ibn Muzayyab nee na suur yi moo ko laaj Ibn Muzayyab ne ko Ousmane rey nañ ko ci tooñ ndax liñ ko jiiñ du moom waaye wa man xataloo kaana zaaliman nee na képp ku ko rey tooñ nga te it wa man xataloo képp ku seetaan it bàyyi ko boppam yàlla nangul na la sa ngànt ndax àggoon na foo xam ne seetaan rek nga man mbir danaa ko foo xam ne mënoo ca dara seetaan rek nga man ndax buñ la def la wut wax la wul la doo sori nee na ma ne ko Saad loolu nu mën a ame ndax Ousmane bi nga xamee ne toog na kare abilaay na nafar maanaam ñu bëri ci saaba yi bëggul woon Ousmane toog saaba yu mag yi ndax lan lewatam ak nooyam ak mbaaxam yërmandeem kersaam te loolu ku ko amee tey bëgg jiitewu nit du sotti rawatina xeetu mu amat yépp nekk sa loxo boo nooyee ba mu ëpp du baax boo waxee xatt ba ëpp du baax waaye boo nooyee ëpp ba bu baax te Ousmane dafa nooy nepp lewat domm amul benn fitna yàng maanaam tàngut saful saful ah ñàngul ragluwul léppam yërmande ak nooy ak lewat mbaax gu ëpp googu te mbaax gu ëpp nag am na lu muy yàq mbaax gu ëpp baaxul ah, ah. lewat gu ëpp baaxul ah. moo tax sëñ aadi dégg nga la mu wax am fulla moo di lu war ndax moom lañuy yore kër ak ab dogal dégg nga de am fulla ak ab dogal moom lañuy yore yoree kër waaye nee na waaye bul weqat nag nib kaani bul weq bul bul mel nib kaani kenn du la jëriñoo doo jëriñoo kenn waaye nag foog fulla ak dogal bi am nag kon Ousmane mu ne lii moo tax ñu bëri ci saaba yi bëggunu woon mu toog ndax dafa nooy ba mu ëpp dafa oyof ba mu ëpp dafa laabir ba mu ëpp dafa lewat ba mu ëpp nitam ñi dafa bëggooni bokkam ba ëpp lu wax ne mu ne amul solo te loolay mujj tas àdduna amul solo ju ëpp moo tax toog na fukki at ak ñaar li ëpp ci ñim doon jox ay poste ba nu umma yalan muy ay bokkam ñoo xam ne àndunoog yonent bi jaxasowunoon ak moom jàngewun ci yonent bi nekkul nit ay saxaaba loolu tax ñooñu nga xam ne ñoom la joxoon poste yi nag ñu doon ñoo xam ne yarul leen yar ba war ci diine ak dëggu ga war ci diine njub ga amuñu ko moo tax toujours ñuy def ay fitna ak i mbir yoo xam ne ñu àndoon ak bi d'accorduñ ci ndax ñoom dañoo jàngee ci yonent bi gis yonent bi gis jëfam gis waxam gis doxalinam looloo taxoon nag ñu bëri xaw ko dumo yi moom Ousmane ngir ñooñu mu jëloon jox leen poste yi te ñuy ñoo xam ne loolu neex la ñuy def nitu bakkan lañ waa naa la léegi wali xam nga jiite julli fa la fa la doy waar jiite julli suba julli ñeenti rakk ñaar nga bañ a sëlmal nga dolli ñeent sëlmal naa ndax ma dolliwaat ndax lan bi ngay julli nekkoo fi loolu nit mbir mbiru bakkan la te pourtant ak góorlóor la kilifa la buñ topp kon loolu nekkoon na loo xam ne jaaxle woon nañ ci euh, Ousmane daana leen yedd nag bu dikkee jàmbat ko ñenn ñi Ousmane daana leen yedd waaye du tax ñu dellu gannaaw falaay falaay asaluhum atam ñaa fanweeri juróom nag muy juróom benn at yu mujj ci euh, Ousmane benn bés waar na leen jàjji leen digal leen ñu ragal yàlla mu jël Abdallah ibn Sarahi dénk ko Égypte mu def fa ay at waa waa Égypte ñëw di tawat si Ousmane na fa Abdallah ibn Abi Sarh tooñe mi tooñ def lu neex ga mi def lu neex lu ko neex jël yi fi jaambur du mujj fenn wane dooleem wane ne maay kilifa maay moom dëkk bi maay gouverneur waa Égypte yëpp def délégation kilifa ya ñëw ba ci xale ba ba Madina sukk ci kanam Ousmane di ko jàmbat li waa ji di def li gouverneuram bi ci bi ne Égypte di def euh, Ousmane jamono yooyu diggam ak Abdel Masud amoon na lu fa xew ak Abi Sarr ak Amar ibnu Yasir banu Usayl ak banu Suraysa ñoom ñëpp ku ci ne am na loo denc ci sa xol ak ibnu Masud ak banu Xifaar ñu ci bari am nañ tuuti ay ñol-ñol yu xewoon seen diggante yàgg na te am na ci ñoo xam ne ñi ngi ànd ak Ousmane yor ay postu ña ngay fayu seeni ñol-ñol yooyu maanaam bu ma falee man maa ngi commencé. commencé wan ki nga xam ne daf maa déggalutoon démb wala danoo jubawutoon démb te tey maa ngi ci pouvoir maa ngi koy commencé wan samay mbir su ñëwee soxla ma ma maltraité ko lu mu bëgg ci man ma soxate ko su su ma koy àtte ak keneen xañ ko dëgg loolu lépp di lay xew ci biir xilaaf Seydina Ousmane ngir lan Banu Umayya bokkam yooyu bi waa Égypte ñëwee di ko jàmbat si Ibnu Abi Sarax yi Ousmane bind ab leetar jox ko waa Égypte di fa di ca di ca tëkku abi sarxi ne ko ah, na nga na moytu te ragal yàlla Usmaan ko koy wax de na ragal yàlla ci xeetu yonent bi nanga jox ki am dëgg-dëggam na nga jéggale nanga muñ nanga nga sakk sa nopp du loo dégg dëgg la du loo ma ni def ko wax ko ca lettre ba lu bari daal di koy tëkku nag ne ko nag lettre bi bu fu mu la fekk na nga sa doxalin nanga nga sa jikko na nga sa melokaan ba ñooñu ñëwee jox lettre bi abi saraid abi saraid lànk ca la ko Usmaan tere ak lam ko dénk lépp faalewu ko waaye nag gën naa mer ci ñi nga xam ne dem ca Usmaan di ko kalaami Usmaan a nga Madina moom mi ngi Égypte muy tànn benn par benn ca ñi demoon délégation bi demoon ca Ousmane mu cay woo benn par benn di leen recevoir ku ci ñëw mu dóor la ba nga mel nit mburu am na ci ñeen sax da leen a rey moom usmaan moom Abdoulaye moom Abi Sarh da leen a rey moom góornóoru Ousmane bi nekk Égypte am na ci ñeen dóor na leen ba amatul njëriñ ndax mer gu mer ci ñii ñoo demoon ca xalifa ba di ma kalaame en tant que man góornóor muy dóor ñii def ñi ci kaso yi ñenn ñi mu reylu leen moom góornóor bi waa Misra nag gën a meraat comme bu njëkk délégation demoon matut téeméer tey nag ñu ne juróom-ñaar téeméeri góor ñoo génn wutali madinatul munawwar te Usmaan ibn Affaan ba ñu dikkee madina ñu wàcc ci jàkka yonent bi jàmbat saaba yi fekk waxtu julli jot am ñu ne sax julli tisbaar la waa isité yi ànd ak waa kër yonent bi saaba yu mag yi jullee ndoo ñoom ci jàkka ji ñu sëlmal ñu taxaw wax seenu naqar booba àggagunte Usmaan waaye gis mag magi saxaaba yi ak ñi nga xam ne nit moo leen fi baaxoon ñuy ay nit ñu dëggu di ay jaamukati yàlla ñu jàmbal leen leen abi serhin def ca ña mu dóor ba mënuñoo jóg ña mu tëj ca kaso ya ak ña mu jël seen bakkan talaata moo njëkk a jóg talaata ibnu abdullah talaata ibnu ubaydullah moo njëkk a jóg ne ah bayil ma dem wax ak Ousmane dikk wax ak Ousmane wax ju tar ne ko bayil xel jaami yàlla yi yàlla falu la faloowu la ay nit yuy lor ay nit ak di dóor ay nit ak di jël seen i bakkan wax ak moom bay génn mer lool moom talaata ba mu génnee di dem Aysa yónnee fa ndaw Aysa soxna yonent yàlla Muhammad yónnee ndaw ca Ousmane ne ko saaba yonent bi day ñu ngi jëm si ci yow di la laaj nga wàcce waajee nga xam ne moo nekk Égypte te nekk fu lu may bakkanam ak lu ko neex bu leen fàtte ne waa jooju moom la nit bi dàqoon ne ko du ma la jox poste yeeyoo ko mu dikkaat ci Abubakar Abubakar dàq ko mu di ci Omar Omar dàq ko tey nag moo nekk góor góornóoru Misra mooy def defin yii Aïcha ne Ousmane wàcce ko bind leetar jox ko ne ko dem leen ne Ousmane na wàcce waaja ndax jubut te ah léegi nag Aïcha wax ca leetar ba ne ko ñamu dóor na leen dàmp jotul nag moom dara ñamu rey nag bakkan ak bakkan rek ana nafsa bi nafsi loolu alquran la ku rey nit na la rey ku rey nit ci tayef na la rey ci tayef waaw euh, sinaali jugaat di kàcce Ousmane ne ko ah, ñun de liñ lay laaj mooy makkaana rajulin ña ña waaj a rey ña Abdallah ibn Abi Sarr rey am nay mbokk am na ñu ko jege te yàlla ne man xutila masluman faqad jaana li waliyi sultaanan mubin képp ku rey nit ci tooñ may nan pouvoir mbokki ka tooñ mbokki kan rey mbokki kañ rey may na leen pouvoir ñu jël seen àq ci ña leen reyal kon nag soo bëggee jàmm am ana nafsa bi nafsi fayu rek ñee ñeemu rey di tuta ñoom dara am na fayu am nay bokk nan wàññi lam rey ciy bakkan ñu wàññi ko ciy mbokkam rey ko loolu imaam Alioune wax a ah, Ousmane ne leen tànn leen ku ma ku ma fa jox ku ma ku ma ku ma def foofa mu nekk mu wutu ko Ousmane joxe engagement ne comme loolu la njàmbal li bëri na li ñëpp waxee dëkk kama fa teg jubut baaxut la muy def dig néexuma déggaluma ku ko santuma ko waaye nag comme nii la yéen ñii nga xam ne yéen ñëw di ma jàmbat si ay mbiram seet leen ku leen doy ci saxaaba yonente bi ma tànn ko bis bi ki tey nome ko mu nekk góor góornóor ma wàcce ko moom saa bay xoolante ñu ne nan nan fa teg Mouhamad ibnu Abi Bakrin doomu Aboubacar la mooy Mouhamad ibnu Abi Bakrin mooma lan tànn Ousmane dal bind ci saase kayit bi ne bis ki tey jël naa Égypte teg ko ci loxoy Mouhamad ibnu Abi Bakrin dénk naa ko dëkk ba moo fay kilifa ah ci ci ci d'accord naa ci maag mboolem ku gàddaay yoon ak ku bokkoon ci waa lansaar al muhaajirun wal ansaar wàcc naa bis ni ki tey Abdullah ibn Abi Sarh léegi nag Ousmane kon nag defal àndal ak sa gàngoor ak say nit ngeen takk seeni gawar wutali Égypte su ngeen demee leetar bii ma leen jox ngeen jox ko ab la Abi Sarh dana génn ak gàngooram nga toog fa doxal fa lii nga xam ne moom la lislaam bëgg Muhammad ibn Abi Bakrin départ na fan la jëm Égypte bi mu doxee ñetti fan bi mu rombo Madina dox lu man ñetti fan gore ci biir àll bi ak désert bi ñu seen benn xale bu war fas wu ñuul kukk di daw di dawal euh, giléem la war xale bi dafa maskaw dafa dafa suumu di dawal giléem gi mel ni ku dàqe dara wala kun kun dàqe wala koy dàqe dara waa kër saaba yi xam ñoo ànd nag Mouhamad ibn Abi Bakr di ànd ak moom di ko gunge pour mu installé boppam ca Égypte ñu seen ko nekk ah kii daal nan ko nan ko laaj mbar jàmmoon xelam yi ëpp na te moom topp dara dara topp ko ñu da woo ko mu ñëw moom borom fas wi ñëw ne ko ah, yow luy sa mbir ak lu xew da mel ni ku dàqe dara walla ku dàqe mu ne déedéet ñu ne ko foo jógee mu ne man. ndawal amiral mumine na la maanaam amiral mumine boo ko déggee rek mooy seefu julli ji mooy Ousmane ibn Affan kon daa bëgg wax na man ndawal Ousmane ibn Affan la waaye daf maa yónni ci gouverneur Misra te booba temps ka fa nekk mooy Abdoulaye ma Abi Sari te wàcce nan ko lettre bi koy wàcce ma nga jëm ki koy wàcce ki koy ki koy remplacer mi ngi dem àggagul moom ma nga toog di xaar ñu ñu ñu jëlee ko fa pour ki toog ndaw li jógee moom it waru fasam daw ne ma nit dañ ci ki xam ne mooy gouverneur Misra bi ma gouverneur Misra lan ma yónni saaba yi ne ko ah, kii nii mooy gouverneur Misra tey mooy ab muy Mouhamad Ibn Abi Bakrin mu ne ah waxuma kii de ko kii mooy Mouhamad Ibn Abi Bakrin Sadiq moom la Ousmane désigné mu nekk xalifa mu nekk amir mu nekk wazir ca Misra mooy gouverneur bi ka fa nekkoon wàcc na. bu demee dañu joxante lenj mu dem yoonam loolu la ko saaba yi wax xale bi naa am man daal kii taxumaa jóg ba mu yàgg ñu ne ko yow kan mu xale ka ku yu yónni sax xale bi léeg-léeg mu ne amiral muminin léeg-léeg ñu laajaat ku mu ne marwaan maanaam ñaar ñu laaj la bu tey mu ne marwaan am yónni bu tey mu ne Ousmane amiral muminin bi lu paree bi lu bari na ñu ne xale bi daal ci kan la la yónni mu ne ci góorlóoru Misa ñu ne ko lum la lun la fa yónni mën a leetar ñu ne ko ana leetar ba ndax da ngaa ak leetar mu ne déedéet ñu wàcc ko ci giléem gi yëlëb yére yi gisuñ dara seet poste dana fekk fa benn kopp bu def daxa mais daxa jaa ngi too xaw a tooy ñu xool am lu ni ci biir mais leeru leen ñu ubbi daxaa ji tuur daxaa ji gis benn fooy ci biir buñ dugal ci mbuus perméable saaba yëpp ngi taxaw mën nañ juróom-ñaar fukk ak ki xam moo war a remplacer góornóor bi mooy Mouhamad Ibn Abi Bakrin bin bin baax bokkee taxaw ñoom ñëpp ñu ubbi kopp bi génne leetar bi fekk ñu am luñ ci bind lan ci bind dañ ca bind isa ataaka Mouhamad wa fulaan wa fulaan da nga de fa atal fii xat lii Ousmane dafa mel ni Ousmane bind te bindul te loolu leer la lettre def na ko lettre mi ngi jóge ci man amirul muminin te buñ ko xare Ousmane la diw a ngi ñëw Mouhamad ibn Abi Bakr mi ngi ñëw ak diw ak diw ak diw bu ñu dikkee fexeel noo leen reyee léegi rek noo leen rayee lettre bi ñu amee xotti ko wérul te nga toog sa palaas maa la fa tegoon toogal fa ma la toog la woon ba baa sama xalaat di ñëw ci yow wala sama ndigal continuer ca la nga nekkoon képp ku ñëw dina la jàmbat si dara jàppal tëj ba dégg sama ndigal wasalaam lii leen bind ci lettre bi xale bi amee woon saaba ba yëpp bi ñu jàngee bi gis lii ubaat seen gémmiñ xoolal fitna lan doon fay fitna amaat na ñu ne waa léegi lu ci xew na ñu ne dootuñ dem Misra dañuy delluwaat ci Madina dañuy delluwaat Madina ah léegi nag ñu tëj lettre bi waññeekuwaat. fekk dox na ñetti fan pour jëm Égypte léegi nag retourné nañ waaw kon daf mel ni mbokk yi xam naa foofu ci lettre boobu lañuy ñu taxawee ah dafa waxtu dafa jeex takk takk takk baal leen ñu xaabaabal nan ba mënuñu ubbi téléphone xam naa ñu ubbi ko trois minutes rek ngeen jéggal nu ndax euh, mbokk yi nga xam ne baaxoo nañ ko bàyyi xel ci lettre boobu la ñuy taxaw incha allahu taala bu ñu yàlla may ñu delsi da ngeen xam fu wànnentu mu ak boroom mo boroomam incha allahu taala euh, kon kookoy Ousmane ibn Affan commencé naa dund fitna ba yonent bi waxoon wallay ndeysaan commencé na koo gis ndax baax na lool jub na lool waaye ñi mu fal ñépp nitu bakkan lañ te mu bëgg leen lool nag ndax ay bokkam lañ a ah, sopp leen lool ndax ay bokkam lañ amal leen yërmaande lool ndax bokki neenam lañ kon loolooy natt bi yàlla teg Ousmane.